ci sëñ Atou Diagne député bi nga wax maire bi nga wax aussi ak chimère bi nga xam ne waa Ndar yëpp ku ñu ku ñu ràññee la mais aussi soo ma ko permettre aw occasion bi ma dellu si ci aussi benn parce que fan yi li ñuy lu ñu génn àdduna ñi ñu deelee ci Sénégal ay fils ay doomu Sénégal yu yu kawe dafa bari nga permettre soo ma ko permettre ma taxaw ci kenn tuuti muy Seyda Yama man aw moon occasion bi depuis lors euh, nekk ci plateau wax ko ci Sénégalais yi dégg ko parce que yàlla dafa def ni Euh, dama yaru ci këram parce que bi ñuy nekk xale bàjjen la si ñun euh, yaay la si ñun sëriñ la si ñun sëriñ daara la si ñun xam nga sëriñ ak sëriñ daara wute na. jàngale na su may génération yu bëree bëri ñu mu doon nekk ndoor Medina yaroo fa fale ci moom la ñu nekkoon. donc mu nekk benn perte boo xam ne c'est d'abord personnel mu buggoon ñu trop aussi bëggoon ñu trop di ñu encourager saa su nekk ci lu ñu nekk di ñu ci dëgëral. donc ma profité ci occasion bi aussi jaalee ko euh, papa Mahi maanaam Cheikh Mahi nga xam ne tey mooy xalif bi ci kër ga ak euh, bépp famille ñeseen ak umma islamique bi yëpp parce que li mu def ci daara bi muy jàngale tajwil maanaam xale yi di jàng muy neex boobu xewagul léegi la ñu gis concours yi ñi ñi di ko def mais bu koy Seyda Yaama ji def boobu xewagul kenn xamu ko euh, macha allah ma profité ci occasion bi aussi bii laa amoon pour taxaw ci jaalee ko te di ñaan yàlla Sénégal yàlla dakkal nit ñu baax ñoo ñu di dem yal na ko yàlla dakkal ci nu mu gën a gaawee ba ñu retrouver suñu sérénité mën a tabax suñu réew mi. c'est important ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax Fadel également sur ce plateau daañu ci ànd ak kii di euh, euh, Seydi Gassama mu nekk euh, secrétaire exécutif de Amnesty International section Sénégal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci suñu njabootu réew mi mooy waa Sénégal ñu nga ñoo ñu génn tey Sénégal amoon nañu liggéey bu rafet bu ma doon def non seulement pour l'amour d'hier mais surtout pour la maçonnerie dañoo si maire nekkoon bi ko ko deuxième boo jóg nekk tamit maire de Saint-Louis ñu ko ñu ko jaare askan Sénégal yëpp waa Ndar waa Waalo waaye tamit di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi dëgër daal mm-hmm. euh, bokk na ci suñu mag bu ñu jéem effectivement mu ñaan yàlla baax la koy ñaanal ñu ni tamit euh, bu wér a wér euh, ci noonu lay nuyoo chroniqueur yi Omar Faye nuyu nañ la nanga nga def. maa ngi nuyu Ndeye di nuyu sama équipe naturelle di nuyu Sénégal sama di nuyu Fadel suma frère. te xam ne tey moom murit yëpp jullit yeeg ñëpp Sénégal yëpp ñoo yeewoo tiis ndax aatu moom ku ko xam rek xam ko ci isbu tarxiya te isbu tarxiya taxawaayam ci Touba ci yoonu murit kooku jarul ñu koy wax kenn ndax daayira yu bëri yoo gis tey ñu bëri seen référence ñu ngi koy jëlee ci aatu ni mu géré daayira yi te loolu dafa am solo il a décomplexé les étudiants qui étaient à à à à l'université Anta Diop étudiants yi bu ñu daan ñëw am na ñoom dañu daan rus a sol ay laxaat mais loolu yëpp bu ñu demee ba nga xamante ni ne gars yi amatuñu complexe aatu la xam nañ ne ñàkk nañ waaye sëñ taxaa xam ne ne ñàkk na te dal dañ ci am nag ak xel mu dal ndax xam naa ne bu ko xasida sëriñ Bamba yi teeroo sëñ Tubaa teeru ko ndam rek lay am te dina am ndam incha allah te ci loolu tamit si la ñuy si la ñuy jóge ñaanalaale képp ku xamante ni ne tawat na pour que feebar bi nga xamante ni moo nekk sa kaw yàlla na ko yàlla fëgg vraiment ñu ngi sant bu baax di di di gërëm bu baax ab Abdoulaye Diaw Chimère aussi parce que réew day am day am day am euh, nen ne li ñuy wax identité. waaw dafay am référence. te ñooñu dañu doon ay référence ba nga daan wax dakaar tudd ay nit wax Tëngéej tudd ay kilifa dem Saint-Louis nga xam ne ñooñu ay référence lañ dañ daan nekk ay ñun yoo ci ni nen ne bu ñu jaar yor 10 000 francs du 9000 yëpp si nit ñi lay dem 1000 francs mooy dugg seen i kër loolu moo tax ñooñu ñu nekk ay nit ay référence te référence yooyu nag ñu mus a nekk yàlla na leen yàlla xari àjjana yàlla na leen yàlla suuf sedd seen kaw. amiin amiin alors Cheikh Oumar Talla nuyu nañ la. Euh, di associé wu rek ci ñu ñu jaale suñu kilifa yi fi jóge muy euh, Abdoulaye Diaw Chimère ak ki nga xam ne mooy maire wu Koki. mais aussi euh, di jaale le khalife général des Mourides jaaree la communauté Mouride parce que à travers la personne de Cheikh Atou Diagne une grande perte pour la communauté Mouride et et musulmane ak umma islamique bi yëpp comme dafa dem ba décomplexer la la pratique. parce que ñi nga doon gis ñuy sol bàyyi laat mooy intellectuels yoo xam ne ay intellectuels lañ. Mhm. ay mais ba pare réclamer seen identité ak seen appartenance par rapport à la communauté communauté mouride et mën nañu wax ni euh, mission accomplie. parce que bëri na lu mu propulsé lu mu liggéey ci ci ci yoonu murit yàlla na ko yàlla xaare àjjana te sangam bi mu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba xaare ko àjjana yàlla yàlla teg si moom ñaan beneen bi Fadel Baro wax sunu maam Mariama Niass euh, gis nañ liggéey bu mu liggéey mun naa wax ni laboratoire alxuraan la amoon fii ci école am. et muy briller partout à travers la monde moom it euh, référence la te ñu mel noonu tey baax na ñu leen di ñu leen di ràññee. waaw nee na di la di la nuyu di nuyu nekk ci plateau bi ñëpp di jaal comme ni ko ñëpp defee euh, commencé jaal bi nag ci ki nga xamante ne mooy xalif général de Mourides di ko jaal ki nga xamante ni jóge na fi di ko ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko fukki yoon fi mu jóge mhm. yàlla na suuf sedd ci kaw mii moom di jaw chimère di ñeneen ñi nga xamante ni aussi jot nañ fi jóge di ñaan yàlla yàlla may leen xoñu famille yi fi nekk yàlla may leen xolu muñ mhm. mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dudd yàlla bu ñu rëccu liñ fi jógee yàlla mën na ko te ko def si daraje ajuma bi ñu nekk mhm. di ñaan aussi li nga xamante ni moom moo fi nekk di mbas bi yàlla jële ko fi mhm. parce que amuñu loolu ay ñaan boo gisee tey ji irresponsabilité bi nga xamante ni xam naa dañ si dugg ci débat bi mhm. état bi wane na ko nañu jël suñu course ak dugg si église yeeg si jàkka yi ñaan rek te xam ne ñaan moo très bien c'est important alors ci Ndoumbelane euh, je rappelle que daañ fi waxtaane ñaari thèmes daañ waxtaane lii di euh, l'affaire Boubacar Seye mais également euh, cette loi qui a été promulguée par le chef de l'État en même temps ñu ngi gis ne que cas yaa ngi yokk Covid-19 donc on va s'arrêter sur ça voir un peu ndax mesures yi ñu fi teg ak décision yu ñu jot a jël lutter contre pour lutter contre le covid mais laata loolu on va s'intéresser dugg ci débat bi wax waxu euh, Boubacar parce que gis nañ ne ko il a été euh, arrêté ñu dégg ci kii di euh, Moïse Sarr secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur wax ne que waxu diffamation moo tax tey ji ñu ñu ñu arrêté ko ñu bëri ci ay lanceurs d'alerte ñu bëri ci ay droits de l'homme ou militants pour les droits jàpp ne que aujourd'hui la liberté d'expression qui est remise en cause alors suñu bëggee xam Seydi Gassama naka lañu mën a analyser cette arrestation de kii di Boubacar Seye alors damay merci beaucoup damay leeral d'abord euh, euh, conditions yi nga xam ne ci lañ ko arrêté nda Boubacar bi muy demee euh, Espagne waxoon na ak moom bi mu fa nekkee tamit on a on a échangé te bi mu ñëwee ñu arrêté ko ci guddi gi mm. bokk na ci ñu njëkk alerté Boubacar histoire bi fi mu jógee mooy euh, benn séminaire boo xam ne médiateur la république moo ko organisé woon daal moom ci xam boppam dafa bëgg dugg dugal loxoom ci mbirum immigration clandestine parce que dafa ëpp loxo. Mm-hmm. moo tax moom médiateur mu amoon benn programme boo xam ne daf ci invité képp ko xam ne yaa ngi yëngatu ci droit de l'homme immigration pour que ñu day ci benn séminaire ñu waxtaan ci séminaire boobu nag euh, délégué union européenne ici au Sénégal nekkoon na mu def ay déclaration yoo xam ne déclaration yu yéeme. Euh, en matière de fonds yi nga xam ne moom lañ injecté ci immigration clandestine. Euh, séminaire bi ñu passé man mi j'étais invité au séminaire dafa ku ma fa yëbal Boubacar dafa wut audience bu dem euh, délégué bi recevoir ko mu waxtaan ak moom ci li ma wax te ñi bokk association bi ak moom àndoon ak moom ci audience bi dañ ma ko confirmer ñu ne délégué union européenne moo ko jox ay chiffres. chiffres yooyu nag ñoom la utiliser ci déclaration interview mu jot a def ci médias yi. waaw léegi bi mu demee à la fin de l'année en Espagne parce que jabaram ak doom yëpp ñu ngi Espagne. donc déjà loolu c'est pas des accusations gratuites euh, c'est loo xamante ne daf ko euh, détenir par rapport ak euh, l'union européenne. am na ñoo bokk am ñi bokk ci association dañ ma ne waruñu bu Boubacar rek nañu ñëw arrêté ñun ñëpp parce que Boubacar li mu wax il te ñun ñu àndoon ak moom ci audience bi waaw li nga ko jox ci ay chiffres nous on témoin waaw kon Boubacar jóge fii dem seeti njabootam bi mu eggee Espagne ci lañ ko waa section de ñu ne ko dañu la soxla parce que dañu la bëgg a introduire ci chiffres yi nga xam ne da nga ko yëkkati wax ko ci média yi mu leen maa ngi Espagne mais su ma ñëwee rek daal lañ wuy si diggante bi ils ont évidemment ñu euh, signalé ko aéroport waa signalement defe naa ne mooy kuy génn kuy génn réew mi waaye ku xam ne dafa dem passe ay vacances ñu woo ko ñu ne leen maa ngi ñëw kooku kooku bëggul daw <laughs> parce que bëggoon daw day toog ci njabootam. Hmm. doomam ñu nga fa jabaram mu nga fa dafay toog. Ah, euh, donc mu ngi doon ñibbisi on on l'arrête à sa à sa descente d'avion euh, ci ay conditions yu doy waar ci guddi ñu téye ko fa ba 10 heures 10 heures la ko jël yóbbu ko section de recherche bi mu fa eggee nag parce que moom dafa pare woon. Hmm. il préparé tout tout tout ce dont il a document yi daf ko duggul ci benn clé jox leen ko waaw parce que moom daf ko recevoir info daf ko recevoir par email de la délégué mu dugal ko ci clé jox leen ko donc jox na leen ay preuves mais ñoom dañu nangul preuve yooyu moo tax ñu téye ko Boubacar il a donné les preuves au départ ñu ne daf leen diffamé donc il devait poursuivre pour ñu xam ne xëy na loolu duñ ko mën a yóbbu automatiquement su mandat de ñu ne xaaral ñu seet procureur nag laaj pour ñu mettre ko sous mandat de dépôt. Mhm. donc le juge d'instruction il était tenu il était lié était obligé de suivre li ko procureur laaj maanaam passé ko sous mandat de dépôt. ñun li ñu xam mooy Boubacar son arrestation. Mhm. a été demandée à très haut niveau. waaw ah, très haut niveau. Ah, c'est l'État du Sénégal qui s'est senti un peu euh, gêné par ces révélations là mais de révélations yu bees parce que am na yeneen documents fi nekk. yu wane ni que. mais 200 milliards dugal nañu ko ci projet migratoire au Sénégal depuis 2005. il effectivement ce communiqué euh, de la fondation Henrik Boll buy wax ne que deux 200 milliards. Voilà. Euh, l'Union européenne injecté na ko par rapport ay programme euh, de lutte contre l'immigration irrégulière yooyu tamit kenn xamul tey jii euh, fan naka lañ ko utiliser peut-être muy wane manque de transparence dans tout ça. mais d'une autre part également euh, naka nga analyser Fadel lii di arrestation kii di Boubacar Seye sachant que am na ay preuves peut-être jot joxe par rapport à ça Seydi Gassama mu ngi koy wax peut-être am na benn clé bu mu leen jox contenir li mu doon wax donc euh, naka lañ mën a jàppee arrestation boobu tey jii. jaay doole la. jaay doole pour man loolu euh, aussi simplement que ça euh, dañ la askanu lëmb mu am li mu am ci kattan jox la ko pour nga organiser réew mi nga di ko utiliser di di ko fajee sa mer parce que dafa mel ni yëf yi yëfu personnel la dafa am leneen lu ci nekk am na lu Seydi sama wax lu am solo maanaam même diffusion de fausse nouvelle lu mu laaj pour que mu effectif dafa compliqué ana journaliste ana ban journal la génne mm-hmm. ñun ñu nekk ci presque bi quand même da nga naan moom complice la war a nekk parce que ku wax waxut kaka jottalee wax kaka jottali mu dans cette affaire là ci ban ban canal la jaar est-ce que visé nañu canal boobu parce que mënoon nga ne ki ko jàllale ndax kooku vérifié nay information am balaa ngay bëgg a donc voilà bu fekkoon ne dañu bëgg jug juste pour leeral mu mënoon nañ ko jox citation directe mu ñëw tontu devant le tribunal sénégalais yëpp tekki seen gët li muy wax am na wala amul amul volonté à mon avis gisuma ci volonté ñu leeral dama gis volonté kaseer parce que gis na bu fekkee ne da nga commencé jël nit ki toroxal ko jaay ko doole tey jii même bu amul loon dëgg dina jafe nit ñi bañ gëm li mu wax parce que xamalu tax parce que dañ ci gis jaay doole benn dañ gis ne dañ ko par parloo def ko yëfu politique parce que lu Boubacar Seye wax am na ñu taxaw digg assemblée nationale bëgguma citer ay tur xam nga ñëpp fekk nañ ko Sénégal les preuves sont taxaw digg assemblée nationale député. taxaw ne digg assemblée nationale ci ñoom la bokk ne. xaalis bi ñu def ci gerte gi di ko subventionné pour baykat yi jot si yeggut. bu dëgg maanaam baykat yi ren jafe-jafe ñu am loolu dañuy dem ñu liggéey ci ñu xool baykat yi ren jafe-jafe ñu am ci. jiw xam nga ren amoon nañu dëgg problème mu jiw boo demee ci biir Saalum di nga ci xam dara ba nga xam ne jural na leen gerte yoo xam ne da ngay ji ba pare mu xaw mu xal ñaar cest da ngay gis un mètre bu amul dara deux mètres bi am et cetera et cetera ba ci jur gi boo ko seetloo ren doom bi feesul gerte gi feesul te à la base député moo taxaw biir assemblée nationale ne subvention yi ñu ci waroon def intrant yi nañ ko waroon joxe joxe wuñ ko yéen a ko lekk te xam naa fu mu nekk na ma procureur woo. ba tudd sax waxu. Euh, euh, waaw il